fii mais mënoon nañ ko gën a togg ba mu gën a ñor ñu door koo yàq. effectivement comme tey comme ni ko ñu bëri ñor dafa xaw niru li wax mbirum populisme ak mm-hmm. flènement. Mm-hmm. mais mënoon nañ koo gën a togg jël projet di waxtaan ndax wax naa la ko diwlin semaine passée ñun ñu ngi doon jaay ay dix huit mille. Mm-hmm. yaa ngi doon jënd ci goro si ci sept mille cinq cent. tey ñu ne la yaa ngi jënd dix neuf mille war a jaay vingt mille. kon dèjà ñoom dañoo yokk. dañoo yokk bu dee déwlin waaw dañoo yokk prix yi. war ci teg boo ko nattee dërëm bi des fois du mat. Mhm. waaw parce que frais de emballage sachet dafa seer. Mhm. sachet depuis ñu wàccee fa loi boobu ànd ànd sachet yi ba léegi ni amul suivi sachet yi amul contrôle dafa seer. Mhm. sachet bu doon def cent léegi vingt cinq lay def di jar euh, di jar cinq cent wala trois cent cinquante lay dikkee la grosse. waaw donc saabu suukar bi ñaari sachet moo moo koy mbuus. waaw ñaari sachet yi sept cent la. te saabu suukar boo war a am mille franc. day na waar day na waar. waaw que tamit loolu est-ce que ñàkk a waxtaan dëgg-dëgg jurul jurul lii te bu ko defee tey commencé daal di manqué. Mhm. nit ñi di wër di wër di wër duñ ko am. rupture commencé am. waaw rupture commencé am bu ko defee nag marché noir créé mhm. loolu mooy war jafe-jafe yoo xam ñun ñu yàgg nañ si anticiper nguur gee fi nekk nguur gee fi jógee daan nañ ci waxtaan ak ñoom finalement gis nañ buñ daal jël édition daan nañ ñu consulter. Mhm. ñu waxtaan ak ñoom. mais ñii nag seen décision yi daal vraiment ñu bëri ni ñu ko gisee moom. daal euh, apprécié wuñ bu baax a baax. mais say gis est-ce que gisoo wàññite bi ñi ci gën a sonn mooy détaillants yi maanaam borom bitik koñ yeeg ñii détaillants yi daal parce que saako suukar boobu la euh, léegi soo ko jëndee euh, transporter ko mu dem nga ak say mbuus ak sa yëpp kon loolu problème ah, la. effectivement mhm. saako suukar boo ko jëndee vingt huit mille sept cent cinquante. Mm, day manqué day manqué day manqué da nga ko fay ko may juróom fukk. Mhm. juróom fukk mu taxaw la ñaata vingt neuf mille. surtout bu dee suukaru Sénégal bi nga xam ne. Euh, yàgg nañ di ko kaas maanaam saaku bi emballage sax du ko am. maanaam du am poil ci biir nga xam ne saaku bi day ruus suukar si di ruus. ba soo ko su ñëwee day manqué dana manqué deux hmm, day manqué lu bari. waaw. Hmm. mais tamit kooku mu bañ koo jaay gënul mu jaay ko. te tamit euh, loi bi moom. xanaa nga am ko ba pare bañ koo jaay waaye loo amul moom bu la neexee nga ne doo jaay suukar ah. waaw effectivement loolu la ñu bëri loolu dara. dañ naan ah man kat lii bu Mhm. ab coono la dong laaj na raamee ma mhm. bañ koo jaay mhm. te boobaa kan moo ci sonn askan wi askan wi kese kay waaw a avant que li amoon marché bi mi ngi doon régler boppam prix mi ngi doon wàcc waaw effectivement nag peut être ñoom dañoo def affaire Euh, bon ñun ñëpp mën nañu ko mën na ah, bi ak pression bi te man dama jàpp ni ñi fi nekk nii mhm. te man dama jàpp ni ñi fi nekk nii ñi leen faloon yàkkamti leen ci dara xëy na kay ñi leen falutoon ñoom ñoo leen teg pression ñoom it leen tegal la daal ñu daan